Tenerife. Ndiaye ak Mamadou Mouhamed Ndiaye jërë ngeen jëf justice bàjjo bi woolu waat na xala ak xuri ngir àtteleen tey ji l'observateur nañu procès ministre Mame Mbaye Niang ak Ousmane Sonko jëm ci coowal Prodac li ginnaaw ñett yoon yu ñu ko renvoyé tey ji la koy réglé ci audience spéciale journal bi nañu ndax Ousmane Sonko dana dem tribunal am ndax du dem tribunal yooyee ay laaj la yu amagul tontu ba léegi certificat médical bi mu yore moom Ousmane Sonko ndax dana ko Ousmane Sonko jëlee décision ne du dem tribunal wuy ji bu boobaa mbir yi danañ gën a doy waar enquête yéene kaay bind ne face à face bu mag bi tey la ci diggante Mame Mbaye Niang ak Ousmane Sonko bi mi ngi ñuy ne bu ko neexee mu toog këram a dem wuy ji dana demam dem léegi ko nañu mën naari naar yaa ngi bésub dëgg bi dañuy wax ne audience tey bi mën naa bañ a jeex tey audience mën naa dem suba maanaam mën naa doon audience su 48 heures ndax fu ñu demee ba 5 heures ci ngoon dañuy suspendre bu fekkul ñu pare gaañ yi dañuy si suba avocat ak Mame Mbaye Niang ak avocat yi ànd ak ku ci nekk ci ñoom danañ la jox fukki minute ak juróom ngir nga def sa plaidoirie Mame Mbaye Niang mi yóbbu Ousmane Sonko ci yoon yéenekaay bi nee nañu wut na juróom benni avocat yóbbaale ci ñoom ñu ràññee ci avocat bi di maître Olivier ancien bâtonnier bu barreau bu Paris bokkit ci avocat yi fi doon défendre Karim Wade bés bi le jour bi ne Ousmane Sonko ni mu toogee baaxul Sonko dafa mel ne moom la ñu jekk procès diffamation bi bu ci daanoo ba ñu daan ko ci ak éligibilité ci réew mi maanaam man fee falu lenn dana tax suuf ci suufu journal Vox Populi ñu gis kenn ci avocat yi ko war a bi di maître Ousseynou Fall suspendre nañu ko ci baro bi démb lañu ko aj ginnaaw porté plainte gu ko juge Pape Mohamed Diop porté plainte ndax kaddu yu mu ko waxoon ci audience bi weesu te mu jàpp ne kaddu yi du kaddu yu respect moo tax ñu suspendre ko beneen avocat bu waroon a bokk ci avocat yi Ousmane Sonko yi di maître Juan Branco Vox Populi mi ngi ñuy wax ne ba mu jugee ca France wàcc aéroport Blaise Diagne fii ci Sénégal fii saa fa la ko takkalaate ay bagaasam dugalaat ko ci avion bu Royal Air Maroc delloowaat ko Paris directement direct news ak tinu juge bi ngir ñu dimbali ñu dimbali réew mi ba ñu pare ci waxi Mame Mbaye Niang ci tribunal réew mi ñoggu lay def ñëpp mel na ñu toog ci nen nit ñi duñu xëy liggéey banque yi tëj bikit yeeg magasin yi duñu tijji entreprise yi ñu ci bari fatu ndaw ñi wàcc ci mbedd mi ñu mobiliser lim bu bari ay force de de sécurité fitna ji ne kurru ci dëkk bi muy jur yàqu-yàqu gu réy ci économie bi réew mi l'observateur ne ko te muy dëgg ndax boo jëlee kër gi di Dakar dem dikk li mu ne du génne ay bisam tey ji ñu leen koy yàqal dogal boobee mu jël bu weesoo askan wi ci loru ndax bëgg dem dañu gis wata bu leen yóbbu li Dakar dem dikk di ñàkk ci bëccëgu tey bi dina mat ñeen fukki million wooluwaat Mame Mbaye Niang ak Ousmane Sonko ca yoon tax na dëkk bi mi ngi ci tension bu mag le témoigne ko ak tiitaange gu rëy vox populi gi dañuy wax ne ko mu doon yewit di yow ndax alxames tey ji alxames la joo xam ne kenn tane wala ci lan mooy xew ci réew mi li xewoon démb ci université Cheikh bu Ndakaaru Source A mi ngi ñu koy nettali ba dañuy wax ne pro Sonko yi daj nañu démb dëgg ci UCAD ndax ci bii boor dañ fa doon defanteeg takk der yi A mi bind mi ngi ñuy wax ci xëta mu njëkkit ne leader yeewi askan yi woote woon marche pacifique bi ñu aaye leen ko ñuy jaay guerrier ne dañu koy def fa force ñoom leader yi ko waxoon démb kenn gisu leen fenn nañu xaw ban manifestation de waaye bu démb bi moom dafa échec dafa lajj dafa avorté journal la nañu takk dere ñoo leen ci bàyyiwul ñi bëggoon a fii ci Ndakaaru dañu leen a ba ñu xool benn place bu dee nag ci yeneen dëkk journal Le Quotidien xëy ko tuddee fin de mars yéenekaay bi bind na leader yu yeewi askan wi démb dañu leen a gazé dégagé leen